chef maa ngi lay siyaar bu baax. loolu yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu euh, euh, mu ngi créé ay ay événementiel ñëw fi nga xam ne mooy canal Olympia tey woote fi ngir mën a lancer ñaari produit lan ngay wax ak sénégalais yi. waaw Marodi moom fois moom rek dafa nekk benn production boo xamante ne bon lépp lu mu def rek Sénégal yi koy bëgg te nekk na instant bi production bu mag boo xamante ne partout dans le monde gars yi ñu koy seetaan comprendre nga moo tax bu xewlee moom gars yi bi ngay seeti bu soobee yàlla loolu demee. lan lañ mën a xaar ci Marodi yu produit yeneen yoo xam ne dina gën a extraordinaire. yu gën a garaaw ci kanam mooy doomu sa kaw ca kanam rek man mii di wax ak yow fa laay liggéey technicien laa fa ak en tant que acteur tamit moo tax Marodi moom dafa gars yi di xaar fii ak des années kenn dootu ko attan. mais Sénégalais yi ñu ne waa Marodi waa Marodi dañoo waane lan moo lan moo tax loolu technicien dañoo waane. su dañoo waane affaire boobu nga loolu de maanaam Marodi mooy Messi